Euh, monsieur le ministre, je voulais commencer par l'affaire Mbaye Diop. Merci au député Fantasal d'avoir porté ce plaidoyer. Monsieur le ministre, je voudrais rappeler que li xewoon mi ngi am juillet 2016 ñu ngi ko jugé avril 2017 elle a été condamnée à mort et je voudrais remercier votre prédécesseur au ministère des Affaires étrangères et à travers elle le président de la République parce que au moment où je vous parle deux frères de Mbayang Mamadou et Mati son à Damam ñu ngi xool Mbayang et ci pèlerinage bi aussi président mayoon na leen ñaari billets et euh, plaidoyer bi ma defoon daaw bi ñu paree aussi président envoyé woon na Mbayang xaalis alors mais jàpp naa ni loolu yëpp am na solo mais man mi nga xam ni maay maire Mbayang Mbayang dëkk sama commune bi bavure bi amee ba léegi ñu taxaw di wax ci mbir mi sept ans déjà képp kuñ ci jàppale nous en serons reconnaissants loolu la ñuy ñaan président gën ci jàpp Sénégal gën ci jàpp je pense avec les nouvelles orientations que le prince héritier Mohammed Ben Salman a pris donc diplomatiquement Sénégal mën na ci def loo xam ni mbay mën nañ ko mën nañ ko amaat fii ci Sénégal parce que jàpp naa ni euh, du moment où elle a été condamnée à mort mais pas exécutée ci semaine bi ci top donc diplomatiquement war nañ ko mën a war nañ ko mën a régler à travers ce qu'on appelle le PIE muy le prix du sang loolu ci jàpp naa ni incha allah su ngeen ci taxawee loolu dina war a mën a nekk en tout cas nous vous remercions pour les efforts yi nga xamante ni def ngeen ko depuis lors ci euh, kaawu mbay par rapport à la question palestinienne je pense que tey aujourd'hui ça devait être le leitmotiv de tous les députés d'autant que le Sénégal préside depuis 1975 le comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. C'est extrêmement important. Donc, dans le système des Nations Unies, la Palestine amul beneen partenaire bu gën a valable le Sénégal. C'est la raison pour laquelle ñëpp moom la ñuy xaar ci moom taxawaay boobu. Euh, malgré les relations qui nous lient avec Israël, les relations diplomatiques avec Israël et ses partenaires, à savoir euh, l'Europe, les États-Unis, Sénégal war na gën a affirmer taxawaayam ci peuple palestinien boobu et euh, ça a été une décision courageuse d'avoir accepté de présider le comité euh, des Nations Unies en 1975 et loolu ça a montré le courage du président Léopold Sédar Senghor courage boobu nag je pense que dañ ko war a gën a parce que c'est une responsabilité morale et historique donc loolu war nañ ko vraiment mën a pérenniser pour euh, empêcher au moins li nga xamante ni moom moo fay am en termes de bavure parce que beaucoup de cœurs se sont fendus ci li nga xamante ni moom moo xew ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ñoo nekk Palestine alors euh, lors du passage de votre prédécesseur l'année dernière j'avais parlé de cinq défis à relever yàlla dafa dogal benn défi bi relevé nañ ko muy la place de l'Afrique n'est-ce pas dans le euh, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies ça été vraiment un vieux dossier porté par le président Abdoulaye Wade Et le président Macky Sall aussi, tout le monde a vu ses prédécesseurs qui l'ont félicité cette année quand l'Afrique a été intégrée, nest pas, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est un défi qui a été relevé et nous voudrons véritablement féliciter le Sénégal d'avoir porté ce dossier pour que tey ñu am ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy ndam loolu. mais beneen défi bi nga xamante ni tey moo ñuy interpellé muy le défi de la pacification de la sous-région alors monsieur dans notre sous-région, ya y a ce euh, euh, la diplomatie du bon voisinage. Et Sénégal def ci mës a rôle bu am solo bu extraordinaire et cette diplomatie du bon voisinage mën nañ gis ni ñu ngi sox parce que y a deux pôles centre s'entrechoquent aujourd'hui alors y des pays yoo xamante ni c'est dirigé par des militaires à travers des coups d'État alors boo ñëwee Guinée Mali Burkina ba ci Niger tey des régimes militaires ñoo nekk di ko di ko di ko di ko di ko présider alors nous avons frôlé benn guerre au niveau de la sous-région et est-ce que ba léegi sax coow li réglé na alors je donne ma langue au et loolu Sénégal dafa am taxawaay bu am solo boo xamante ni war na ko ci mën loolu c'est un défi boo xamante ni euh, ça interpelle le Sénégal alors maintenant euh, la question que je voulais poser mooy qu'est-ce que le Sénégal prévoit de faire pour la pacification n'est-ce pas euh, de la de la des tensions au niveau au niveau de la sous-région parce que loolu xaaruñu ko kenn ci turu Sénégal alors maintenant la place de l'Afrique dans euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies je l'ai je l'ai je l'ai dit alors maintenant je voulais savoir où est-ce que vous en êtes avec l'unité africaine parce que c'est un dossier qui tenait à cœur le président Abdoulaye Wade avant de passer les témoins au président Macky Sall mais on on a l'impression que depuis que le président Wade a quitté ce pouvoir il a pas eu beaucoup d'avancées majeures sur l'unité africaine. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les grands pôles, les grands ensembles, l'Union européenne, euh, les États-Unis euh, d'Amérique, euh, Émirats arabes Si l'Afrique véritablement continue ci li nga xamante ni mooy soupçonnement bi nga xamante ni moom la euh, n'est-ce pas les colons bàyyee woon ñu donc jàpp naa ni Afrique dinañ bëgg mu développer te du dem loolu j'estime que ñun suñu am na possibilité jouer ci rôle bu am solo parce que comme j'ai l'habitude de le dire le Sénégal est un pays petit pays sur le plan géographique mais c'est un géant sur le plan diplomatique